léegi jóg asalaamaaleykum yéen waa Paos Koto maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jéggulu ci ñàkk a xam gi nga xam nag xamu leen ma maa ngi sant yàlla ci bés bii nga xam ne maa ngi koy def ci Paos Koto di ñëw fii ngeen jàpp ma jàpp bu dëgër ma doome nday nekk fi ngeen ñi ànd ak moom ba mel ni fii la juddoo loolu maa ngi ciy sant yàlla ma ñëw fii fekk fi seeni doom toppanteeg ñoom ba ñëpp ku nekk na nga wax maanaam yàlla muy ay xaarib yoo xam ne ñu ngi juddoo ci Paulus Koto dëkk ci Paulus Koto ñëpp a dekki kenn du taxawal ñuy jàng ñëpp jox naa leen di toog ci kàttu na yàlla. léegi defe naa ni ma ko defee. xëy na bëggoon ngeen beneen bu ko dàq waaye nit ku nekk bu fekkee day jàngale dafa war a jël taalibe mu mën a sëri ci kanamam mu dégg ko waaye koy su xamalee nit da koy nangu mu sëri kañaan kowul loolu garab ci koy waay jotante kon bu fekkee yaa ngi yar ay nit na nga fexe ñu mel ni yow lii moo tax su songoor ba léegi maa ngi poos toog de déglu li ma déglu sedd na sama xol doy na ma xoolu naa ko gëm naa yàlla tey yokk naa na ma ko gëmeewoon ne man dafa daan wax ne man du ma dee nit ñi wéddi ko waaye tey kenn mënu ko werante ay kilifa yu mag la ma yàlla defal ma sant leen te maa leen xamal leen tam tey kenn manu koo werante fii ci Paos Koto parce que gis ngeen ni duut see di def wax dëgg yàlla borom xam-xam yi nga xam ne dinañ jàng ba bugg a dee manuñ koo manuñ koo defee noonu loolu kenn taami yàlla la ngeen xam ne kon man deew ma duut see ngi nii gis nga ni mu def keneen na nga fële Dakar keneen na nga Ndar keneen na nga Banjul foo dem rek yar naa fa nit ñoo xam ne fuñ toog nekk kilifa li ma man ñu man ko loolu doy naa sant yàlla looloo tax moo wax ne gërëm naa yàlla sant naa yàlla ci li nga xam ne moom la def moom jëf ak santat yàlla gi nag mu ngi yem talee ci doomu aadama ak morom ma waaye boo génnoon doomu aadama yàlla rek nekk parce que kenn du fi ne kon duñ sant kenn duñ gërëm kenn xam ne moom kenn fi ne su feeñ waa la yore bu ko neexee mu feeñee na ko neex fu mu neex ak fu mu naqari. kon su ma yàlla yéen waa Poos gërëm naa leen yéen ñor di leen digal yéen gune yi bu ma dem dinaa wax loolu da ngeen fonk seen way jur yi man du may def dara man. du ma wax dara du ma tooñ kenn waaye dafa am maam koo xam ne bu ko nit di maam ci way juróom su waxee mu tontu su amee du ko dox du ko yërëm du ko dimbale dafay def noonu te bu la bañee doom boo ko juree boo ko meree da nga ko mere waaye nag da nga ko xamal ngay bañ mooy li ma nit ñee bañee te xamul moom mooy yow mu bugg yéen buñ màggalee rek yéen a ko na nga ne am yar na nga ne am teggin ci seen ndey ak seen baay te leen man ku leen ma jox man am naa yàlla dafa am yàlla ñàkkuloo nag te loolu laa gome jom gomu ma leneen kon bu ngeen bëggee ni man dama foog kon suma ndey ak suma baay foog leen seen ndey ak seen baay waaye am sëriñ naan mooy ci ma sëriñ foofu bu mu gënal la sa baay ak sa ndey loolu boo foogee na dëggalee sa ndey la bugg a nax parce que siraatul mustaqiim lañ wax kenn ku ne am na yoon wu jógee fan la jaar jógee àllaaxira fu mu jëm àllaaxira diggante bi ñu jaar nii diggante àllaaxira ak àllaaxira foofu mooy àddina waaye kenn ku nekk nag tànn yàlla ci boppam tànnal na ko ndey baay na ko jaaral foofu nit ñi ñëpp daje bi kenn ku nekk am na fu mu jaar paas bi fii tey boo ko laa jaar keneen jaar fële keneen jaar fële ñu tosee fii bon bu leen bàyyi seen yoon yi muy tilim parce que dafa parce que dafa ne wala dégg da leen fa jàpp wala ndox ma def climatisé yi da leen dimbale seen waajur yi da leen may sutura da liggéey da leen dox da leen saagoo ñoom suñ leen digalee ne leen waaw su naaree sax ba digal la na a waaw li nga wax laa def boo demee nga def leneen ñu xam ne luy jël lu ko jëriñ ngay lëggee ne yéen a lëggee suma baay ak suma ndey ba kër gi jooy kenn du nar waaye daa ànd ak man di toroxal sa ndey ak sa baay ñu naan duuru bi tee la moo tofloo gune yi moo meloon nii nii nii te de ku mu ne mel dem naa ko nii mbooloo bi rànq na waaye xam naa ni ko rànqal rànq na waaye xam naa ni ko rànqal waaye du ronkoñ dégg nga de rank na mbooloo me xam naa lu ko rankal waaye du ronkoñ maa ngi leen di ñaanal yéen jigéen ñi sëy yàlla barkeel seenam négab sëy te jox leen fa njaboot bu góor ak bu jigéen doomi saaliin ak doomi saalihaat doom ju am xel ak jom ak wërsëg ak gudd fan ak wér gi yaram ci daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defal ñun ñun ñëpp nag mujj gu rafet maa ngi ñaanal góor yi nga xam ne ñu ngi fi nekk te liggéey yal na yàlla barkeel seen liggéey bi liggéey bu barke nag boo nee di liggéey soo buggee bu barke lépp loo xam bul nangu say yaay da xiif sa baay da xiif na nga def ngóor a defar ko lal bu rafet na nga xelaat tabaxal ko néeg rafet waaye bu ngeen ko ko bàyyee naan dañuy def ca baajudu baajudu baajudu baajudu am na doom yu ko tabaxal am na doom yu ko jëndal lal am na doom yu koy defoon lépp loo xam ne rek soxla naa ko kon kat bu leen bàyyi seen waajur yi bu leen bàyyi seen waajur yi na ngeen leen gëm na ngeen leen toppatoo buñ leen gërëmee lépp lu ngeen bëgg a am ko suñ leen gërëmut da ngeen sonn da ngeen góorgóorlu waaye du ngeen am wala bu ngeen amee du bari. am nañ ko wax dëkk bu ma. yàlla rek lu dul yàlla moo ko moom. loolu laa yëf yi demee. yéen na ngeen fexe. defaat seen ma fi ñu wootee bu leen ma jox dara. da leen rey nag. da leen toog ceeb bu bëri. nit ñu bëri da ci kon ñu kenn ku ne ana si yow kenn. dama la ko dama la ko dama la ko dama la ko dama ko def def naa ko nag laa ko maa koy def nag maa koy def maa def maa nag lay def nag nag lay def. soo na nga ko xamee tëral na ko pour te defoo dara lu ma gis loolu d'accord ma ci déwén ñaari saako ceeb laala sa si yow lëmiñ maane maane maane doo ca yem danga koy jëf mu gis dégg nga yéen ñaar ñii loolu laa leen sas ku bugg a ni yéen nag na def ni yéen loo daana mu daaneel sax rek lu toll ak la nga daan su ko mënoon na def la man waaye yéen ñaar ñii maa leen sas loolu ci tàkk na yàlla mag ni ma ko waxee buggee leen ko noonu te fas ko yéen a defee ko noonu dara du ngeen ko am na seede ngeen di teral njaboot gi yéen dama bëgg ngeen di teral njaboot gi jox leen ñu lekk ba suur naan ba mandi lépp attan leen ko def déwén la jom nag ci waxtu bi déwén su ma téléphoné laaj leen ne leen def def indi nga nag indi nga ceeb bi yëf yi toxut defu leen ko ah du ma ñëw de. dama leen dox nag li ma leen dox nag dama bëgg ngeen bàyyi xel nag fas yéene def ko def ngeen ko man tuut dama leen di wax ne leen dem leen defe ko ngeen di ko démerder mu ne leen emmerder man du ma emmerder kenn waaye da ko bëgg fas ko def fas ko yi naa def wut ko am ko def ko mu jaral la jaay sëmb bu def ci na leen ko jaral bésab jëlen bi ci fii bu ma leen gën a fa ne defu leen yeewu leen ngaar du ma ñëw saako ceeb bi daanoo fi ma yo yow mi de ñaari saako yow napp yow yaa ko xas ko yéen ñi ci def ku ci bu ko yokku na jàpp bu la kenn ëpp doole bés bi da nga ko fonk da ko yëgal nit ñi da jox nit ñi ñuy lekk ba suur naan ba màndi xam ngeen xam ngeen xamal naa leen lépp wax dëgg nag waaye li tax ngeen manqué le am mooy ñàkk a joxe manqué le am bi ngeen di manqué le am ñàkk a joxe la su ko dul jooxee ba tax nag bu jooxee dana bëri meew ku dul jooxee du am meew dëgg laa leen di wax da leen joxan seen nag seen biir sëpp leen ma jox man am naa waaye da leen joxante ci seeni biir te def ngóor a bés bii nga xam ne bu fi ngóorom bi lu mu bëri bëri kenn du xiif kenn du mar loolu laa bëgg ngeen di ko def loolu laay santaan na nag sant mu dem ko yëngatu fu ma dem jox ko ñooy jëriñu dañu jëriñu de dem naa ko fële ci dëkk ba dëkk séeréer bi benn centre moom moo jóg ne moom déwén bàyyi man maa def na comme ni nga waxee déedéet naa war a xam ne ne fi nekk nii réclus ko te te ren bii bu ñu demee ca kaw moo jënd nag encore. li nga nit ki dafay gëm dara. waaye maa koom yàlla wala maa ko xam te bu moo dara ndax bu bu bu ëllëgee boo ko jógee semence yi dana naan ah paa bi dafa aaloon rek. leen sàrde de parce que yéen bu bu ci sàrde moo sàrdeel boppam. bu baax. yal na yàlla dimbale leen. na yàlla sàmm leen. dëkk bi yàlla nañ ko fekkee dina jàmm. ba dëkk bi gën a neex. man nag sant naa yàlla kontaan bëgg naa yéen itam ngeen xam ne yéen a ngi am ci seen biir place bii ay ay ay baccalauréat am na fi licence am na fi licence boobu mën wax am na fi ci mi te ñu ko jógee Dakar te ci daayira bi lañ bokk ci saal bi lañ bokk université lañ ne ñoo yore daayira Ablaye muy ñëw waaw kii mooy Ablaye Diallo mooy président yi daayee ba foofa ñii ñëpp ay borom xam-xam lañ te jaral na leen ñëw di nga ñii ku leen xamal yàlla mais nga xam ne xam ko dëgg mooy tax nga xamal leen parce que li xam dafay mel ni ku wax ak yow nga xam ne da nga naan kii xam na yàlla waaye boo xamul yàlla nga ko mën a xamal yàlla moo tax lii bu ñu ko yàlla defalee loolu war ngeen ci sant yàlla sa góorgóorlu bu baax a baax ba ah du tey yow mi nga xam ne yow nag yàlla moo mën a jaay ma jënd ko maa la jur itam ba ilaa yow di ne ñu ko dindi ci man yaa danaa koo wax fu ma dem wax ko maa la jur bañ ma loolu yàlla ko def mënoo koo bañ amoon ndey amoo baay amoo mot man rek nga am maay sa ndey maay sa baay doo jaaxle mukk maa garanti loolu doo sonn fenn maa ko garanti loo bugg a xam-xam ko maa ko garanti loo bugg a def def ko bi maa ko garanti loolu mooy li nga xam ne. boo seetloo defe naa horoscope ba bëri na ñoo xam ne xam nañ yàlla lu téye dem xamal yàlla fii waaye wóor na leen ne àgg na koo xam ne xam ngeen ne yéen ñi mu xamal ngeen di ay taal bi doon sukk ci ronam mel na melo boo xam ne day yokk waa ji wàññeeku kon nag bu ngeen bëggee mel ni moom da ngeen di jéem moom mel ni moom te yokk te bul wàññeeku te su la yokk ngeen nag. jàngkat yi yomb nañ liggéeykat yi ñi nga xam ne dañuy liggéey ñooy fexe ñu ngay liggéey ñu ngay yokku dëkk bi sax bu jàmm nga passé nga gis dëkk bi day wéet wala nawet ñëw mooy sax mu wéet la ko ñëpp ñu ngi am lu ñu jàpp loolu waaye ku ci nekk la mu jàpp yenn ci yàlla dafa fàtte ci daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ngeen di sakkantanam te sakk jabar ci daayira bi waxuma ci àll bi da ngeen di sakk jabar ci seen mbokk taalibe yi I'll forget you Let me walk